c'est la référence. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu tàmbali ak Atlantis ak jàmm ci xabaar yi bu ngeen taaxiloo tuuti rek ñu jukki leen ci gën a bokk na ci xeex mbëkk mi di Barça wala Barça fexe ba ndaw ñi bàyyi gaal yi toog ci réew mi ànd ak amab xëy mooy mbébétu conseil régional bu Kaolack ci lëkkaloom ak waa Konrad Adenauer dajale nañu ndaw ñi ci ab euh, forum doonoon waxtaanu laaj ak tontu daa leen dégg ci biir xabaar yi l'école tolloog 30 pour cent ci ndongo yi am seen baccalauréatum ren ca université virtuelle du Sénégal la xam ne nag mooy daara ja attanu loolee ndax ña fa nekk rek ña ngay jànkonte lay jafe-jafe yu méttee métti la bëgg nag mooy jëwriñ ba leen jaboote dalal leen ba noppi deltu gannaaw ci boobu lee dogal lu ko mooy daañu leen dégg ci ay xew daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne wàllu euh, politique mer na lool ba futu moom di njiital ab xodel di fàttaliku rek fa bopp waaye terewul boolewuñ ma ci dara laajuñ ma dara aw ma benn ndombol tànk tax mu amaloon ab assemblée générale safonte askan wi gannaaw juróom-ñeenti weer boole kook di xamle ne faaw mu deltu gannaaw ci wàllu politique gannaaw ba ku mu àndal rek nga suufel ko daa ngeen ci dégg Cheikh Babacar Dieng daañu wax ci lakk gu métti ga amoon niki bi ci guddi rek ba ñaari waxtu jotee ca marché Ocass bu Touba Mbacké yàqu-yàqu yi nag ñu ngi koy xayma ci benn milliard ci sunuy koppar daa ngeen ci dégg Mamadou Moustapha Mbaye ca bitim réew Cheikh Tidiane Sarr lañ ci daal ni yëgle yi xëy tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon li lépp yemee mbokk yi xabaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala taal loolu ñu dikk ak yéen ci yaatal gi ak fanfàcc gi gannaaw bàkk bi lay doon. Le journal Ndeye Khady Sadio. dal leen ak jàmm mbokk yi yéen ñi tàmmu la référence internationale ngir ay xabaar yu leer te wóor gi di bàyyeeko fii ci meuble Cheikh Imam Assane studio Ali Momar Lo sekk madame Keneme moo ak man ci wàllu xarale ba dégg bi man di leer ñu dooree ko rek ci mbiru ndaw ñi conseil régional de la jeunesse bu Kaolack yore lépp lu jëm ci wàllu ndaw ñi ci lëkkaloom ak waa Konrad Adenauer amal nañu am ndaje mu mag altine ji ca conseil départemental bu euh, Kaolack seqoon ko ak ndaw ñi mu doonoon buntu rek ngir ñu waxtaanee waxtaanee li nga xam ne rek moom mooy mbëkk mi xool rek lu ci euh, safara ak lu koy mën a nan la ñu ko tuddee woon Cheikh Tidiane Sarr. forum bu mag lañ ko tuddee woon jagleel ko ndaw yi nag ngir xeex lii ñuy wax mbëkk mi maanaam émigration clandestine conseil régional bu Kaolack ci lëkkaloom ak kuréel gi ñu wax fondation Konrad Adenauer ne taxaw nañu temm tey ngir xeex li ñuy wax Barça wala Barsaq Silma Ndiaye moo di président conseil régional bu Kaolack. contentement liggéey en partenariat ak suñu partenaire bi nga xam ne mooy fondation Konrad Adenauer ànd ceeg le conseil national de la jeunesse du Sénégal dajale ndaw Kaolack yëpp ci bésu tey bi di waxtaane ci benn question boo xam ne ñun ñëpp gis nañu noonu la ñu soxale pour mbëkk mi nekk loo xam ne maanaam suñ ginnaaw lay nekk mais dinañ mën a empêcher wala dimbali ay ndaw yu bari yoo xam ne tey ji dinañ xam ne dem ci mbëkk mi du solution. forum boobu nag occasion la woon ngir ndaw yi jugee ko ci ay gox yi fasantu ñu wax li nga xam ne moo di seeni entrepreneurial bu Sénégal leen war a xoolaat wax na ko kuréel yi ngànk ndaw ñi ak ñëpp ñoo war a booloo faire comprendre à jeune bi jël di fay trois cent à cinq cent mille que ni bu ko démarré woon son business mën na ci monter projet boo xamante ni tey suba wala ginnaaw suba dootul soxla pour dara ñun dañoo war a nekk ay père war a nekk ay relais bu ñu delloo suñu ay localité lépp li nga xam ne wax nañ ko fi dañoo war a dem waxtaan ak suñu moromu jeune ba nga xam ne ils sont pas tentés ñuy jël gaal gi. waaye nees mën a def ba ut saafara ci tawat yi nga xam ne ndaw yi dañu di ko jàmbat ci mim réew Silema Ndiaye. solution bi mu ngi fii ci biir réew mi mu ngi fii parce que yaa a des potentialités et donc énormes que le Sénégal d'accord dispose yoo xam ne ñu conscient nañ ci loolu dans nos localités xam nañ tey jii am nañ ay possibilités def entrepreneuriat ressources d'accord qui s'y trouve. ci lu soxal conseil national de la jeunesse nag ci kàddu Khadim Diop. mën na noo wax ni état am na ay jéego yu am solo yoo xamante ni mi ngi koy def pour xeex li nga xamante ni mooy chômage des jeunes teg na fi ay programme yu bari yoo xamante am na jeunes yoo xamante jot nañ leen cee financé mais loolu dañ ko war a yokk tey jii soo dee xool tey demande bi nga xamante pour nga satisfaire euh, projet de jeunes yëpp mi ngi tourner autour de cent cinquante milliards te ku xam DER c'est plus de donc dañ koy wax mu gën a yokk loxoom. daje boobu amee woon ci teewaayu kilifa yu takkoo takku waaye timit ci teewaayu partenaire bi di fondation Konrad Adenauer. Cheikh Tidiane boobu boobule jotoy nag la ci ndaw li xamle mooy ne dañoo war di ko amal saa su ne ndax dina tax ñu xam seen ay jafe-jafe ak li koy saafara waaye itam dina tax ñuy mën di waxante dëgg ndax jot na ñu teewlu seen kàddu bu léegi ak Cheikh Tidiane Sarr. la vérité dafa jot. jotaay bi conseil communal conseil régional conseil départemental dañoo war chaque fois di bàyyi xel ci ndaw chaque fois bi dara ñu woo chômeurs qui sont dans la localité. man bokk naa ci ñi gëm ne gouvernement bi li mu wax ni créé na ko ci emploi lépp créé na ko waaye nag liñ dul bàyyi xel mooy bu ñu créé cinq cent mille emploi des fois dañuy jël ay décisions yoo xam ne day créé un million de chômeurs te ñu ci bàyyi xel moo tax li ñuy liggéey lépp lépp lépp lépp duñu ko gis dana bari nii mais duñu ko gis. que état moom moo war a créer les conditions de réussite man mi leen di wax je suis un entrepreneur avicole bon avec le peu bi ñuy naan commencé avec 300 000 francs créé ma benn ferme bu ndaw ak cent 150 sujets genre mais ki ma doon concurrencé c' est un fonctionnaire de l' état da doon dawal oto boobu sama buntu kër di jaay ay ginaar kon marché bi moom moo saturé li ko saturé loo lan la ay fonctionnaires yoo xamee ñu ngi investir dans le privé am possibilité leb ci banques yi et tout ñi ëpp li ñuy recruter léegi mooy ñi nga xamee ñu ngi ci làng politique bi ñi politikuñ amul benn considération mi ngi noonu euh, jaaw junjoon nañ leen ko sànq ci bopp xabaar yi ndongo ya jàng ba am seen baccalauréat atum ren ji xaaj bi yëpp daañu leen yóbbu ca dara ju kawe jañu duppe université virtuelle du Sénégal loolee nag métti na loola kuréel ga tàkkee lu jàng yi ne bañuñ leen dalal waaye dafa fekk ne rek daara ja moo àttanul boobule alim na fan la dogal bi bàyyeekoo ci Tidiane Diagne. dogal bee ngi bàyyeekoo ci kilifay réewum Sénégal ne nag dinañu orienté 30 pour cent ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nouveau bachelier yi ci université virtuelle bu Sénégal. mel tax na kuréel gi takkee étudiants yi am ci xel mu ko lëndëm secrétaire général kuréel yi takkee ndongo yi jàngee ca UVS ne kër gi mënta jël lim bi mel la. ñun ñooy représenté étudiants yi duñ nangu sacrifier étudiants yi sacrifier tamit suñu bopp bañu ñu ne duñ recevoir suñu morom mais mënuñ leen recevoir ci condition yii nii 30 pour cent mooy environ ay mais cest à bala ngay def loolu man damaa jàpp ne il fallait nga taxaw étudier terrain ba pare 20000 est-ce que loolu université virtuelle du Sénégal am na capacité d'accueil boobu noonu. ci waxtaan wi ñu seq ak moom Mouhamed Ndiaye du ñu xamal yeneen jafe-jafe yoo xamante ne université bi nu mel mu ngi koy dund bokk na ci jumtuwaayu xarale yi nga xamante ne moom la ñuy jàngee fi ne amuñu ko. 5 giga leen di jox doyul ngay gis étudiant boo xamante ni day def quelques cours connexion am jeex par exemple ENO Kaolack ay milliers d'étudiants ñu ngi fi waaye a

yoon ñuy xajamal bi nga xamante ne tàmbali nañu ko tax nañu ne ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Omar Anne amul génn gëdd bu mu jox UVS te itam li ñu mel bu ci delluwul gannaaw dinañu amal ab gerew ci ndorteelu ubbi teg l'école bii. envoyé nañ nag demande d'audience au niveau du président bu ñu recevoir d'ici peu de temps dinañu dégg. laata loolu nag dañuy desandi ci wàllu njàng meeg njàngale mi dem seeti ñeneen ñu am njàqare ci njàngum ren ji muy wajur ndongo yooyu jàngee ca sem franco arabe bu lycée Valdiodio Ndiaye classe ya matul ndongo yi bari mbaar yee ñu leen sampal ña nga jaaxaan ci suuf tax rek kuréel ga leen takkee ñoom way di woo kilifay ngànk wàllu njàng mi ak Cheikh fi ñu fi orienté. bokkul ak ñi fi nekkoon te ren daanaka fii bariwul. kon nombre bi daa gën a yokk classes yi wàññeeku. ndax ñaari abri yi nekkoon ci sow bi fële moo mujj daanu. ah rek xam nga ne xam ne yow jàng rek nga yaakaar bëgg ko mbaar yoo xam ne lu nekk a ngi fi ay xajak yi mbaam xuux ak lépp kon nag man daal li ma ci am lu may wax mooy autorité yi communale nañ dimbale franco bi. mais bi ñu ñëwee gis nañ ndongo yi ci pour école bi ñu taxaw ñoom ñëpp dañoo amul fu mu jàngee wala. ñàkk classe moo fi ne six classes ci mbooloo mi nga fekk te gis nga am na ñu dugg troisième yi dugg nañ waaye ñi des ñi ñibbi nañ sax ndax amuñ fuñ dugg ak man gisoo kenn fi ndax pareegul tabax bi moo trois classe la ci la xale yi dugg ñu ci toog nañ ba dem nañ problème mu classe daal moom lañ am. Ah, mbaar yi nekkoon fi dëng sax moo tax daawuñu fi nangoo jaar waaye mbaar yooyu daan bañ defar ko mën nañoo dugg xool waaye duñ fi ñëw moom daal moom am na problème am na ci xam ma lan lañ ragalee franco bi te franco bi mooy seen jàmm ndax nit ku xam kenn mënu dugal ci lu xam bañ ubbee franco régional abri ah, loolu xel nangu na ko waaye autorité yi ñoo jàppalewul franco bi te résultat yu baax yëpp fi lay génne gis nañ yenn classe yi mbaam xuux yi fa jur ak yenn xaj yi ñu baal ñu ci kàddu gi nu ngeen di def bën génn dafa mel ni da am jafe-jafe génne leen xel nangu na loolu xam ne gouverneur fi la ne préfet ne fi IA ne fi am na fi at moo xam ne bu loon franco bi ñu kàppoon région bi yëpp duñ gerew duñ toj dara duñ def dara jamaa jàpp ne looloo jigéen ci wàllu euh, bourse sécurité familiale waaye itam wàllu njàng mekk jumtukaay yéen ci euh, woo waaye itam seen wàllu wér-gu-yaram El Ousseynou Ndiaye di chef de service départemental ba ñu teewlu kooku nuwaa bi yaay parce que élèves yi nga xamante dañoo nekk ay élèves te di jàng dañuy bëgg seen jàng gën a fës ci loolu dafa laaj ñu gunge leen gunge bi mooy naam ñu xool naka leen mën a jàppale jàppale leen ci lan ci wàllu ay jumtukaay appui scolaire jàppale leen ci wàllu aussi ci seen euh, situation socio-économique dugal leen ci wàllum programme nga xam ni nga xamante ne nit ki di nga mën a lekk mën a faju te loolu am na programme bi nga xam ne dañ ko wax programme de la carte d'égalité des programme boobu moo day tax handicapé bu amee carte bi ñu mën ko dugal ci wàllu mutuelle de santé wooyu fal paj bi daal dugg beneen bi aussi day tax handicapé moo ci wam mën di feyeeku bourse de sécurité familiale mais aussi am na yeneen njëriñ xam ne mu ngi ci wàllum éducation te yëpp programme bi da ko prévoir donc dañuy bëgg élèves yi nga xamante ne doogoon ci ñu mu xool leen nemee ko leen mun leen dugal ci ci programme carte d'égalité chance boobu bu laawee day jot seen waajur parce que élèves nga da nga ko dimbale bu dee ab ceeb wala diwlin mu jot ko ci ci wàllum ndimbal mais loolu ca kër ga la jëm kan la waroon waajuram moo la waroon kon ndimbalu jot na yegg ca kër ga mais ëllëg aussi bu leen ba am bourse de sécurité familiale bourse boobu la muy am mu ko bëri day kër ga la parce que ay waajuram la waroon te moom li mu dem ba di koy amal boppam beneen bi aussi wàllum santé bi ñan ñan la war ay waajuram la war bu dee ba nga xamante ne moom ci boppam programme bi mën na la ko ba ci boppam à kon donc loolu njëriñ ci moom. waaye nag euh, lu soxal wàllu ndaw ñi nga xam ne rek ña ngay jël gaal gi ba seen bakkan di ca des ndax ndaje yu bari yu ñuy amal mën naa tax ba ñu bàyyi ko waaye itam lan moo mën a tax ba développement am ci réew mi Ousseynou Diop. man damay Euh, bu ñuy def suñuy atelier ay objectifs de développement durable ay ODD gi demee noonu aw développement local dama ne développement mënul am mukk ci benn réew boo xam ne dafa négliger produit yi mu am war ci dund war ci naan war ci lekk war ci faju donc ma liggéey boobu moo ëpp importance te ji bu ñu ko joxoon gëdd ndox mi nga dégg nii gëdd ci dugg parce tubaab li ñu rawee mooy ña fa nekk nekk ay baykat nekk ci agro business bi ñoom ñoo yore économie réew ma pauvre nekkul agriculteur en Europe ou bien aux États-Unis aux États-Unis dama bëgg xam ne que muy réew tugal ak réew bu mën a doon boo xam ne développé na ñu tey ay patron yore koom-koomu réew ma ñoo ñoo nekk ci agro business bi mais ñu nag suñu réew yi ñi nga xam ne ñooy patron yi ñi nga xam ne ñoo war a ndóol mooy commerce commerçant yi wala politicien yi wala débrouillard ñi nga xamante ni defuñu dara ñooy xëy xëy rek daal ci xaalis mais li ma gëm daal mooy que ne l'agriculture wala l'agrobusiness moo gën a mën a yëkkati réew jëmale ko ci kanam. Ousseynou Diop junjoon nañ leen ko itam ci bopp xabaar yi dañuy dem rek ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké bi ñaari waxtu ci gudd jotee bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne rek ñooy commerçant yi ak safara su mag nag moom moo fa tàkk jëppee bare bari ak li nga xam ne rek mooy ay centres commerciaux safara si bëri lool ba ëppoon doole ñi nga xam ne rek ñoom ñooy sapeur pompier yi donte amoon nañu ndimbalu seen naataango yu jógee ko woon ca Diourbel Mamadou Moustapha Mbaye muy lu doy waar ñi nga xam ni kon ñooy commerçant yi nga xam ñoo nekk ci marché Ocass bu Touba ñaari waxtu ci guddi ba léegi marché bi mi ngi tàkk mu nekk ay cantines yu nga xam ni dañoo taxawloo waaye nekk ci ay centres commerciaux ñoom nag ñoo jékki-jékki rek di lakk guddi gi yëpp daanaka ñi nga xam ne ñooy askanu Touba ñu ngi ci watu marché bi yore seen soo ndox di sotti laata ñi nga xam ne ñooy waa sapeur pompier di ñëw ñuy wax ne waa sapeur pompier yu Tuubaa ci boppam ñoo njëkk ñëw laata ñi nga xam ne ñoo nekk fale ca diwaanu ñaareem ñëw jàppale leen ci liggéey bi waaye dafa ni marché bi ci boppam fay moom mooy euh, li nga xam ne moo leen të ñi nga xamit ne ñoom ñoo nekk ci yeneen marché yi nekk ci wet gi di ay commerçant ñoom it daw nañu wàllu si ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché Ocass waaye mënees naa jàpp ne gën ngaa néew ay téeméeri téeméeri million ci ay CFA ci boppam dañoo tàkk jëppet bokk ci cantine yi nga xam ne jot nañu lakk ay cantine yu nga xam ne dañuy jaay fëgg jaay waaye ay cantine yu nga xam ne dañuy jaay électronique ay maanaam ay télé ay frigo ak ay yeneen jumtukaay ñuy wax it ne bokk na ci nga xam ne ñàkk nañ fa ay millions yu bare bare ki nga xam ne kon mooy Serigne Abdou Fatah Gueye di président association Touba ca kanam moom ñi euh, nga xam ne moo jiitee Touba Technoplus moom euh, boutique am yëpp dafa euh, takk ba jeex préfet laaj ñuy wax ne ni ki démb rek moom préfet bu Mbàkke mi ngi doon wax ne faaw rek jël ay mesures de sécurité foofee ci marché Ocass bu Touba ñu def fa ay bouche d'incendie mel ni laataam kàddoom di daanu rek la fa jéey ji am fan la lakk gi jóge nag mënee su la ko wax waaye mën nañu wax ne ñu ngi wax ne fi nga xam ne foofee policiers yi di faral di toog foofeel la lakk ba jógee waaye loolu lépp ay wax la lu nga xam ne rek ñii amagul jumtukaay jëm ko xam ñoo koy wax mënees naa wax it ne waa police bu tubaa ñu ngi fi ñoom it war a ubbi ab l'enquête ba jamono ji may waxee ak yéen saxaar si mi ngi continuer di am ci marché Ocass bu Touba lakk gi nag mooy ci at mi ñetteel bi yoon muy lakk mu mel ni kon faw rek ñu jël ay jumtukaay mu nekkoon Mamadou Moustapha Mbaye fii ci Touba pour Alfayda FM. sant la gërëm la Mamadou Moustapha Mbaye ci àndandoog sa micro dem seeti ci délégué marché ba di di Dia moom ma nga ñuy xaymaal rek euh, tolluwaayu yàqu-yàqu yi ne rekk ëpp na benn milliard ci suñu ay koppar ñu teewlu ko. camp bi lakk waaye lakk bu mel ni mosu fee am lakk bu mel li nga xam ne yàqula nañ ko nit bu la mën a taxaw ne estimé lu ne nangam la rek mu tam xam naa daal ay milliards yàqu waxuma la na lool nag vraiment lakk gi maanaam fee ngay wax fee ci koñ bee la la ma garde yi nga xam ne ñoo fi montoon dañ ne ma fa la lakk nga tàmbale mais nag mënuñoo ginnaaw assuré wuñ ne courant la wala leneen la waaye de toutes daal xam ne fii la tàmbalee ci seere feer feer la lakk ci tàmb bi mu commencé lakk rek ci lañ ma woo ci laa daal di woo kilifa yi ma war a woo di daw ñëw bi ma ñëwee booba ay ay une parce que lakk commencé ay une heure bi may expliqué booba une heure tegal ndax li may li moo tax ñi may woo moo taxul woo naa préfet woo gouverneur woo sous préfet woo fu ma xam daal woo naa ko ba ci mairie jaaxle tey ji dama ne marché bi bu kenn ubbi nan àndandoo ñun ñëpp naqar bi nga xamante ni yàlla teg na ko suñu kaw te li ëpp nag noo ko defal suñu bopp ba pare kon nag mel ne géej gi rek bas ma nekkoon ci géej gi daal moom ñu ñooyam tey ndax li muy yàq ci ay milliards kenn mun ko wax waa xam nga bi may ñëw maag sapeur pompier ñoo fi ak seen doo mais booba wax dëgg yàlla amuñu fu ñu jaar amuñu fenn fu ñu a jaar ba nga xam ba mën a fay lakk fenn lañ mën ta a fees na euh, étalage yi bari na amuñu fenn mën a jaar moo taxoon wax dëgg yàlla yëf yi nekkul woon loolu fekkonte ne afoon na tuuti kon balaa egsi fii ba tey fay na waaye nag wax dëgg yàlla mënuñ ci woon dara mooy nii dong la mënoon a def yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 pàcc bu mujj bi ñu ngi ko jagleel rek mbiru uh, politique junjoon nañ leen ko itam ci bopp xabaar yi gannaaw juróom-ñeenti weer génn nañu ci seen tekk kaareel ga ñu ànne woon génn itam ngir saafoonte kaskan bi waaye itam indi leeral rek ci fan ñu toll ci wàllu uh, politique ndaje ba ñu amaloon na nan la tuddoon Cheikh Ababacar Dieng. ab AG la ñu amaloon ñoom wax waa Aprodel ci Kaolack waaye mujj gi daanaka dafa soppeeku woon jaayante diggante responsable yi ak seen leader bii di Moussa Fall mi njiit li soxna Ami Ndaw moo ko collectif micro bi. xëy na erreur la woon la daw ma ma fenn bu ma àndut ak Moussa la Moussa delloo waat naa la loxo yi doxaat la sama bopp àndaat ba bétuwaar ndangaan ngaan Alassane gaawaan ba pont Serigne Bassirou territoire communal bu Kaolack yëpp responsable aprodel yi ñëwoon nañu ku nekk ci ñoom nag mel ni ndaje gi ñu woote dafa dekkil sa xol ndax dañoo bëgg seen parti bi di dox bu baax soxna Nabou mu ngi dëkk parcelle. di leen xamal ni fii suñu kër la kër Moussa Fall nekkuloon bërëb boo xam ne pour politique moo ñu fi doon dañ fi ñëw ndax Moussa suñu frère gëm boppam musuñ bàyyi sa bopp Wally Seck nee xale waaye dañoo ànd ak moom ci ànd bu sincère Moussa nekk responsable boo xam ne boo ne ko aloo téléphone mu jaar sa tur te loolu yombul ci leader Moussa ma lay xamal ni man sa sœur man man sa ginnaaw ak bépp mbooloo bi ma àndal ëtt maam Mariama di liggéeyal yoonu ginnaaw suba ak ngoon bu jeg daanaka ay weer a ngi nii ci wàllum politique ñu ngi ko bootale woon ne Aminata Touré mooy ndeyam lu ñu mel nag dafa mel ni dàqu na ndax njiital Aprodel nee na moom doom ju am béjjën la kenn mënu ko boot ci politique jeex na tàkk ni jullit tubaab président Moussa Fall. dama leen bëgg a leeral nii 2012 laa bokk ci Benno Bokk Yaakaar la suite de l' élection de Macky Sall en 2012 damaa bëgg loolu leer ku àndal damaa ànd ak yow ci wetu Macky Sall ànd ak yow ci bi damaa ànd ak yow pour jàppale président de la dama koy jëlaat sama mouvement politique parce que dugg naa affaire ba pare léegi responsable parti politique la maa ngi bokk ci biir l'alliance pour la république sama taxawaay kay mooy mooy ma leeral sama diggante ak sama askan fexe ba juróomi ñoom si aprodel mu nekkaat un levier de développement mais feeñal ak sama ancrage maanaam sama xóotal xóotal bu may xóotal sama bopp sama taxawaay ci biir alliance bi maanaam ci biir majorité présidentielle bi dama ko bëgg a leeral ba mu leer nañ man si dans la majorité présidentielle mu leer nañ léegi nag képp ko ma nekk ci wàllu politique da nga fekk nga àndal Macky Sall rek doo àndal Macky Sall ñu nekk ci majorité bi foo ma tàllal loxo ma tàllal loxo parce que danañu ànd pour que Macky Sall am victoire parce que Macky Sall li koy may doole moom mooy responsable nekk ci biir Kaolack ci biir région bi ñu benn pour ànd liggéey dootuma xalaatati mukk mukk mukk mukk mukk lëngoo nit ci beneen anam boo doon amee ci quartier Gaawaan nit yu bëri ñoo ñëwoon fekkee si ko Mimi Touré mi ñëwoon mooy leaderu Moussa Fall nag ci biir AG bi daanaka dañu ko fay minimiser amul benn responsable bu ko fi tudd tàmbalee ci Moussa Fall ba ci suuf Cheikh Ababacar Dieng moom Moussa Fall nag ne faw mu soppiwu doxalin deltu gannaaw bu baax a baax ci mbiru politique gannaaw ba àndam ak njiitu réew mi Macky Sall laatum 2012 ba tey jii amalu ko benn njariñ mu ñu teewlu ko moom Moussa Fall ak Cheikh Ababacar Dieng. mooy saafonteeg suñ population yi depuis neuf mois gisante wuñu ak nit ñi waxtaanu di def ay activités donc après ab parti ci biir APR ma ni jot na nag ñu taxawaat beneen taxawaay parce que li ñu mooy dañuy mel ni tey après dafa nekk un parti wala un mouvement entièrement à boole wu ñu ci dara laaj ci dara te ni ñu compté nomination du fi jaar grâce du fi ci apporté alors que ni man membre la depuis 2012 di jàppale président de depuis 2012 maa ngi ci di ko jàppale amul benn élection boo xam ne jaar na Sénégal te man jëluma sama alal ànd dem campagne taal sama oto jël sama alal def ci ay millions def ko ci pour jàppale président de la République muy législative muy référendum élection dix moyens yi ñu a responsable foo mun ci toll ak loo mun ci foo nekk di ko ko ba mu fal président fu nawle ñoo bokk réew mi nekkuma di jël rajo yi comme ko gars defee ak di chantage parce que li ma moom mooy ni en doo ko jàppale ba pare da jël rajo yi ne ko

Moussa Fall ne lépp jot waaye itam xam le ne euh, na ngir moom njiitu réew mi Macky Sall defaraat Kaolack te boole ci Moussa Fall El Hadj Malick Guèye ak Cheikh Ababacar maa ngi joxe sama message di ko jox kan sama xarit di président Macky Sall fi may wax ak yéen nii Malick Guèye may conseiller spécial du de collectivité territoriale Macky Sall ci politique moom laa def muy sama égal waaye suma doyen nag dinaa ko nuyu muy Ablaye Diack mooy suma sëriñ xam nga ne kooku mu jàngal ku ne mokkal nga xam nga ne ku génnee ci daaraam mën nga samp daara Moussa am nga lu kenn amul dara mayu la ko sa jikko moo la ko may dafa daw sama yaram li ma ci sa taxawaay ci Sine Saloum nga ne sans portefeuille maa ngi ñaan président ne ko nañ defaraat Kaolack président nañ defaraat Kaolack Kaolack dafa laaj ñu defaraat ko message bii nag moom dana ko dégg de buñ ne Malick Gueye toog na fii rek wallaay tallaay dina xam ne du ma ko wax mukk lu dul luy jëriñ raison bi ak lu koy jëriñ moom président Macky bi ma ooyee pour ma ànd moom dama ko ne ànd naa ak yow ngir ñeen yow doomi Sine Saloum nga première dame doomi Sine Saloum premier ministre doomi Sine Saloum président assemblée doomi Sine Saloum dama ne bu ñu ñàkkee ñoo tale waaye yàlla jox nañu lekk dama ne nañ defaraat Kaolack Kaolack li fi nekk du bëgg jaadowul warul dama ne seret du jiitu fas électoralu région bi bi président Macky Sall toogee ak léegi su passé élection am yi dara baaxut ci am nañu bàyyi politique bu média ku bugg a def politique dama mel ni musa Moussa Fall wàcc sur le terrain ma ne ku bugg nit ñi nit ñi ngay sa bopp ngay ji ma ne ku bugg dugub dugub ngay ji ku bugg gerte gerte ngay ji ku bugg a góob nit ñi sa bopp ngay ji Moussa saa nga gub sa bopp ji sa bopp moo tax tey ñii tey góob leen maa ngi wax président ne ko maa ngi koy ñaan bu nekkee dafa bugg a dimbale Kaolack na ci boole Moussa Fall maa ngi koy ñaan ne su nekkee dafa bugg a dimbale Sine Saloum na ci boole Moussa Fall maa ngi koy ñaan ne ko moom président eh ngeen may ma tuuti nag ma wax leen su ma jàngoon français premier ministre lay doon Macky xam na loolu kenn du ma ko tee doon kenn deux cent dix trondoor laa fi am yóbbu fi deux cent quatre vingt trois kenn defu ko fi ci Sine Saloum moo tax ko El Hadj Malick yi ñoom ñooñu ñëpp nag la ñuy àndal dem ca diwaanu Passy des ci mbiru politique gannaaw ba mu wuyoo njiitu réew mi Macky Sall moom Idrissa Seck ay farandoom ya ca commune Passy rafetlu nañ ko bu baax a baax boole kook rek di ko ñaax ngir mu gën a liggéeyal Sénégal ngir intérêt askan wi madame Khadija Seck di responsable communal du parti réew mi ca Passy mu ngi ci micro Cheikh Tidiane Sarr. bu fekkente ne département bi la ñu ngi préparé pour def suñu déclaration mais man personnellement man en tant que tey responsable communal réew mi si man dama ko accueillir avec fierté ndax se li tax mooy gouvernement ñoo nationale dafa ñëw ci moment bi nga xam ne Sénégal daf ko soxla ndax kenn ku si nekk boo seetee nag sa bopp en âme et conscience xam nga ne gouvernement bi Sénégal soxla na ko ah moom tamit di ko félicité parce que mënoon na am xëj na diis wala rëy ba loolu du ko si fekk mais nag réew ñëpp a ko bokk dem nañ ba nga xamante ne xëj na ak Covid bi pandémie bi ñëw laal na lu mi lijjanti économique bi sukk na kon président bu demee ba ne day def gouvernement d'union nationale si ñun suñu leader muy le président sa Seck nga xam ne président sa Seck économiste la am na lu mu mën benn ñaar aussi ko xam-xam ne kat la ku ko xam tamit nga xam ne kii boroom xam-xam la donc ñun bu nangoo méttendu boobu ko président de la république tendre ñun ñi àndoon ak moom ngir Sénégal parce que nag dara taxul woon ñu ànd ak moom ndax yaakaar ne moom war na mën a am lu mu mën a def ci Sénégal ba mu wàcc si suñu base yi nga xam ne tey ñun tamit lii ñuy dund dina am lu bari lu nga xamante ne dinañ ko mën a saafaraam di ko encouragé ah di ko won tamit ne ñu ngi taxaw si ginnaawam di ko jàppale. gannaaw pass yi ca Vélingara itam ah, waa réew mi ah, daje nañu wane seen ak pété ah, ci dugg gi nga xam ne rek Idrissa Seck dugg na ko ci gouvernement bu yees bi la ñu xam ne nag tey jii la ñu ko gën a bëgg waaye itam di feddali seen coloré ci moom Assane Ba yore seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Babacar Diouf. bi amee mooy dugg président Idrissa ci gouvernement bi wax ju bari daf cee jóg te boobu Vélingara dajewul ñu parce que comme que parti discipliné lañ il fallait que ñu remonter communes yi ba ci coordination yi ba ci département comme ni ko frère Kébé waxee coordination yi communale yi départemental bi yëpp daje nañu ñu war a mën a wax suñu position ci biir dugg sa sekk ci gouvernement d'abord dañ ciy sant bu baax suñu borom di ci sant suñu borom bu baax ndax euh, musul dévier ci mission am parce que benn mission rek la Idrissa Seck mës a am muy sant ndax dafay toog yàgg wax ni saa bu Talla boppam amatul solo te ñëpp xam nañ ni situation bi réew mi toll ak problème Covid bi ñu génn ak suñu doom yi dem ci gaal gi di mbëkk conjoncture bi nga xam ne ni pays yi ñu gën ëpp doole mondial bi ñu ngi koy yéeg ci coono ñun tey suñu wareef mooy réew mi anticiper jéem a bokk nangu loxo bi Macky Sall tàllal sa Seck mu wuyu ko ci lool ñun ci loolu lañ ko doon xaar te vraiment ñu ngi leen di xamal ne ànd nañ ci tey tey lañ gën a mën a fëddale suñu kóllëre ak président Idrissa Seck di ñaanal yàlla ne dugg nañ muy le frère Yankoba Diatara ak le frère Ali Sala yàlla may leen kàttan may leen am xel ak xel mu xelle ba nga xam ne ne mission bi leen jox te nga nekk mission bu diis yàlla may leen nu mu ko matalee ci jàmm ak salaam ba Sénégal gis ci njëriñam di dolli di waxaat rek xew ci jamono yàlla tey daf ñoo jox presse boo xam ne ay doomu aadama yu ñuy jàkkaarloo mu jox ñu presse boo xam ne ni virtuel la mooy loo xam ne dafa nekk ci kaw jaww ji te kenn du ko gis muy réseaux sociaux yi te Sénégal forme de presse boobu danañ dégg wax ju nekk te liñ ci gis tey wax ju ñaaw moo ci ëpp wax ju rafet. xabaar yi bitim réew. xabaaru euh, bitim réew Cheikh Tidiane Sarr yaayu roppalaan bi ana fan lañ koy dooree. ci réew mii di Mauritanie lañ koy dooree wax ci jafe-jafe yi nga xam ne commencé na fës lool ca bët gànnaaru réew ma nag boo moytu daal ca diggante Sahara occidental nag euh, jamono ji nag lu mel sax moo jaaxal parti politique yi nga xam ne daal ñoo bokk ca ku jóge waaye tamit naka noonu ci ñi nga xam ne ñoo far ca pouvoir ba réew mi nag di Mauritanie nag di am njaaxare bu baax a baax ci frontière bi nekk ca bët gànnaaru réew ma nekk tamit ci diggante Maroc waaye tamit front Polisario nag ñooñu la ñuy ooye ay indépendant artiste nag euh, jamono yi daal dañoo baare wala sax coupé li nga xam ne daal moo di yoon bi sosoon rëkk tak te nit ñi waroon fa mën a jaar ci diggante Mauritanie ak euh, Maroc nag lu nu mel nag am na daanaka ñetti ay bis jamono ji nag euh, Maroc ci boppam mu ngi xool ay pexe daal ngir ubbiwaat pom boobu nga xam ne nag moom la ñu ooyee pont de passage de Guerguera nekk nag ca bët gànnaaru Nouadhibou tolloog juróom fukk kilomètre ak juróom. xabaar yi. mu réew ñu jubali ca Burkina Faso wax ci élection présidentielle yi nga xam ne daal war nañ ko fa amal nag ci lu yàggatul dara nag foofu la ca réew ma nag parti bi ñuy wax MPS nag jamono ji daal moo nekk ci campagne waaye ci campagne boobu nag gisuñ ci leaderam ñu koy wax Isaac Yakuba Zida Isaac Yakuba Zida nag ci soxal élection yooyu nga xam ne war na am nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weer novembre bi ñu nekk nag ki fi danoon élimaanu jëwriñ ca réew ma ca période transition ba nag daal moom nag ñu xamle woon ne daal dina ñëpp si waat ca réew ma moom nag gannaaw bi nga xam ne daal demoon na foofu la ca réew mi di Canada def fa li ñuy wax exil ci ab mandat d'arrêt boo xam ne nag lancé woon nañ ko ko ngir daal li ñuy wax désertion maanaam daw ci temps bi nga xam ne jàmm amoon na fa waaye tamit tu weddi wala sax bañ a topp lii di ay tegtal. xabaar yi bitim réew. jubali ca Europe wax ci tolluwaay mbas mi ñu wax coronavirus soxna day xarit nag réew yu bari ca Europe nag ñu ngi daal wala sax boo moytuwul danañ ñu jëlaat ay matuwaay yu bees tax nag ngir gën a fàggandikuwaat ci mbas mi ñu wax coronavirus. Autriche bokk na ci réew yooyu ji Allemagne waaye tamit Italie France naka noonu ñoom daal taxaw nañ temm nag ne boo moytuwul daal danañ ubbiwaat wala sax danañ defaat li wax confinement waaye tamit jaarale ko ci jëlaat ci yeneen tegtal bokk na ci tëjaat yenn ci établissement yi ay yenn ci daje yi naka noonu xumbeel yeeg tàggatu bi ci waxtu bi nga xam ne daal ñu ngi wax waxu relance de l'économie maanaam ñoŋalaat suñu koom-koom ci waxtu boobu tamit soxna Ndeye Khady jàppal na tamit gis ne daal vaccin bi ñuy wax mën na fàcc mbas mi ñu wax coronavirus réew yi bëri nga koy commencé di testé mu nekk nag beneen tolluwaay ngir ngir mën a daan lii di coronavirus. xabaar bitim réew ñu jeexalee xibaaru bitim réew ca réew mi di États-Unis wax ci élection sénatoriale yi nag li nu mel nag daal ñu ngi ca campagne bi wala sax ñu ngi ci li nga xam ne daal moo di jàmmarloo yi ak diggante ñi nga xam ne ñoo di républicains yi ak démocrates yi nag état bi nag di Georgie nag bokk na ci état yi nga xam ne jamono ji daal ñëpp a koy jéem ut ngir am fa ndam nag États-Unis nag ak élection yooyu nag nga xam ne war na am daanaka ni ki juróomi fan ci weeru janvier bi di ñëw nag ci atum 2021 moom nag li tax ñu war ko amal nag di élection sénatoriale yooyu moo di rek xam kan moo jiitu wala sax kan moo am majorité ci diggante républicain yi ak démocrate yi ci péncum ndaw réew moomu xabaaru tàggat yaram xibaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñu sóobu ci xibaaru tàggat yaram yi na ay entraînement na fa seeti ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Ndiaye Diack di président section football bu ay Saloum ñu déglu seen waxtaan. bon pour le moment mënuñoo évaluer gum pour xam ne am na changement wala mu changé. démarré nañ ñi fi démarré presque ñu bees ñoo ëpp ñi fi nekkoon daaw am na quelques uns ab dix yoo xam ne nekkoon nañ fi daaw ñëwaat nañ mais ñu bees ñoo fi ëpp moo tax ñu def ko deux camps am ay remplaçant pour commencer football pour def ay détection mais fii ak fin semaine bi moom vraiment dinañ mën a xam ñan la ñu war a mën a aborder saison bi ren bu soobee yàlla kon technicien yaa ngi xool après suñ paree ñoom bu ñu présenté feuille bi ñii lañ soxla on va négociation yi ak ñooñu pour mun a xam ni ñu démarrer non coach yi changé wul Ibou moo fi nekkoon daaw bi Covid bi am Ibou Diouf moo fi nekkoon moom mooy daaw gis nga championnat biñ ko démarré joué nañ match à yëpp yàlla may ñu fa ay points ñu perte ñaari match Kaolack comme d'habitude ni ñu commencé championnat yëpp suñu objectif mooy bugg a yéeg yéeg fan mooy Ligue 2 te yéeg Ligue 2 bi aussi dafa am lu mu laaj moo tax gis nañ effectif bi ñu amoon daaw ren dañu bugg a renforcer équipe bi ak des joueurs de métier yoo xam ne vraiment am nañ niveau pour que ren ji bu soobee yàlla yàlla a nañ Ligue 1 joué nañ Ligue ay équipe yu dem ay Coupe d'Afrique sax ñu ngi fi kon championnat bi foofu vraiment du yomb mais suñ mettre atu yi ñu bëgg yëpp suñ côté ñëpp ñëw jàpp si ñëpp ñëw ñu tiré dans le même sens bu soobee yàlla dinañ ko mën a. jaajëfal ko bu a Malawi ak Burkina Faso ndam demul ndam dikul Soudan du Sud am ndam ci kanam Ouganda benn bal ci dara Sao Tomé Principe ñàkk ci kanam Afrique du Sud ñeent bal ci ñaar Gambie am ndam ci kanamu Cameroun ñaari bal ci dara Zimbabwe ak Algérie ku nekk ñaari bal nga dugal sa morom Algérie nag qualifié ndax benn poñ la doon ut Botswana am ndam ci kanamu Zambie benn bal ci dara Eswatini ak Congo ndam demul ndam dikkul tey nag Soudan moo laaleeg Ghana bu benn waxtu jotee Rwanda di laaleeg Cap-Vert Éthiopie di laaleeg Niger Lesotho di laaleeg Benin Angola di laaleeg RDC bu ñeenti waxtu jotee Centrafrique di laaleeg Maroc bu ñeenti waxtu jotee Togo waxtu jotee qualification mondiale zone Amérique du Sud Venezuela mooy laaleek Chili Équateur di laale ak Colombie Paraguay di laale ak Bolivie Ligue des Nations Espagne mooy laaleek Allemagne France di laaleek Suède Croatie di laale ak Portugal Luxembourg di laaleek Azerbaïdjan Monténégro di laale ak Chypre ma ngoo ko ndey xadi gannaaw bu ñu na ñaanalee kendaa yooyu jàmm li moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat jërëmi jaa jëf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 lakk ci géej gi ca waaxi ka weer ya ba am ñu fa faatu allah libération moo ñu ko xamal fañ doon dem barça far teere ji barsàq vox populi na ko téeméeru doomu aadama ak juróom fukk ñoo fa nekkoon ay sénégalais lañ ak ay gambien waaye juróom-ñaar fukk ca ñoom rekk génn ca gaal ga ña des réer neen wala dee nañ laa séene kaay jox kàddu kenn ku nekkoon ci ab gaal fañ doon dem barça seen gaal ga suux Cheikh Ahmed Tidiane Dieye la tudd ma ngay nettale ci yéene kaay ab bato fu ko mbëkk rek gaal ga suux ña fa nekkoon ñëpp a dee laa wax ba mu des ñaar ak man muy ñett te mooy yéen a kaay ne gis nga île yi fa nga xam ne fala gaal yi di teer ngir dugg biir Espagne espagnol ya fa dëkk fi mu toll nii seen xol fa jeex fa ñëw muñ ba sonn bët bu set ay téeméeri téeméeri sénégalais yegg ci seen dëkk ba ba tax ña ngay ragal ñu lor leen sànniwaat leen ci géej gi delloo si leen ndax yéen ñi fa ëpp laa si yéen a déggoo bi am diggante réewum Sénégal ak mbootaay réewu Europe yi ngir ñu napp suñ jën yi Sonko ñaawlu na li mel ba pare tuumaal njiit réew Macky carte réew mi ci les écoles yéen a kaay Ousmane Sonko ne li ci gën a garaaw mooy Sénégal tubaab yi benn kilo jën bi li leen ko jaayee moo gën yomb juróom fukki yoon li jën war a jar xam nga fa ñaaw laneen lu ñaaw mooy ubbite école ren bi école yu bëri xamuñ ay jàngalekat xamuñ ay table banc ba tax le quotidien yéen a kaay ne ubbite école bi baaxut de nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Ousmane Sonko Pastef fi mu toll nii fañ leen di xaayee ñu xamal benn ndaje politique diwaan buñ dem rek ñu ne leen amu leen autorisation ba tax Walfadjri yéen a kaay ne Sonko nag ak ñam àndal ña artu jëwriñ ñu dénk wàllu biir réew mi ci jëf ju ñaaw jooju 24 heures yéen e kaay ne Ousmane kay xaw kan moo ko bëgg a sànk Vox Populi ko loolu fa jaralaajam Sénégal yépp xam nañ ko di ki nga xam ne Sonko ko teree nelaw kooku rek la de enquête yéen e na ko bu fekkee Macky ngay wax lenn daal naa ko xamal ray na ku jégi opposition bi jeex nañ tag xanaa Sonko moom ngay wax moo ci des ñëpp fekki nañ ko donte nag nii mu def nii xam nañu rallimaa yi jeexagut de xam na yeneen ponkal yu nar a bàyyi ku jégi dem fekk Macky laas yéen a kaay na ko xanaa yow Issa Sall ngay wax ki nekkoon candidat bu pur Moustarchidine yi ci wote yi weesu fa nar a bàyyi pur taxawal parti boppam te ay jege ñaaleem ne nañ Macky la nar a fekki yaaw seetal turbine yéen a kaay na hëy gis ngeen Macky mi fa xamul li koy yoot waaye baaxut ci moom de tànk yi Ablaye Wade xawoon fa la Macky xaw bennoo ngir séddoo réew mi mais ni ko tiim sab gato rek daal na ko wër na daal ay tànkam moom Macky li muy nas yëpp ci kawam a këpp ki ci wàllu wàllu politique muy Ablaye Wade démb daal rajo France Internationale RFI fa tàggee woon na Ablaye Wade fa faatu aay waaye bay xibaar bi daanu ci la Ablaye Wade jóg ne man de maa ngi nii di dund ànd ak sama gi yaram xopp ma dara dalu yàlla musal seen gémmiñ gi yéen a wax tàggee ku deewul waa RFI ca tribune yéen a kaay na ko ñoo ngi jéggalu fa ñoo juum ñun daal fa ñoo dégg na rek am na ay médecin colonel yu bëri yu ñëw sa kër rek ñu foog a Sedima ak waa Ndengaleer ya jubóole bañ leen jubóole woon léegi tey mu jeex de ndax nawet bi wàcc na te béykat yi nee nañ seen tool ya pare wuñ koo bàyyee Babacar Ngom Sedima waa Sedima ya tamit nanguwu ñoo ba kon nag Macky moom la ñuy xaar léegi ñeneen ñuy xaar Macky ci mu dimbal leen ngir yàlla ñu am ndox muñ naan mooy askanu jàmmalaay Grand Yoff ñaxtu gàddu ay paan moom lañ doon xamal ca dalwaayu kër gi ñu dénk wàllu séddale ndox mi wal fajiri yéene kaay ñi ko xamal di quotidien moom di ñu xamal nguuru Sénégal dugal ci ay milliards yu du xaaj di jeex xapp ak lakk ci wàllu mbënd mi ak taxawaay assemblée nationale ci wàllu wi ni mel le yéen kaay moom di ñu xamal ne ambassadeur bu réewum Chine bu bees bi ñu tabb Sénégal ma ngay wax yoon wi ñaari réew yi war a aw ci ak jàppalante la mu jàpp moom la quotidien yéen kaay mooy na corona bi réewum senegal xam na ci ndam lu mag yaw seetal ambassadeur bu Allemagne bu France ak bu Grande-Bretagne rafetlu nañ taxawaay bi ci senegal xamal ba corona bi deltu ginnaaw ke deltu ginnaaw nag dëgg te kenn defut ko ku may ku nekkoon jabaram mooy Jóob Isaac seen kër ga immeuble ba kajji nañ ko dàq génnee ko fa moom jëkkër ji ndax yoon nee na Aysatu Seydi nekkoon jabaram moom moom kër kër léegi am na ci droit les écoles yéen a kaay ñi ko xamal la mu ñu xamal moom enquête yéen a kaay mooy commerçante ba ñu rayoon ca diwaanu Koungheul ka leen jiite woon nag fukki atu kaso moom lañ ko tëj tàggat yaram Augustin Senghor samp na ndëndëm ngir jiite kaaf kuréelu football gi ci Afrique fukki réew ak juróom xànd nañoo moom bokk na ca Gambie ak Gabon moom Augustin Senghor nag ci Vox Populi nee na état bu Sénégal ci ànd toon du ma mës a samp sama ndënd te man nag mën naa jiite kaaf stade yéen a kaay mel ni ko naan kaa ah, sa moom Sénégal dëgg-dëgg ndaanaan la ci wàllu football moo jiitu ci Afrique moo njëkk a ci CAN 2022 record yéen a kaay di ñu xamal jongante bu neex diggante Espagne ak Allemagne sunu lamb yéen a kaay di ñu xamal ne Alioune bàyyi na ci gafaka CNG bi ay millions yu bari ay trophée ay sièges ay tapis ak oto démb la jébbal lee ngay nag biraa seem moom biraa nag nee na fañ ko lancé défi Alioune Sarr na ko yu sew yi daal ngay teg fële bañ a tontu te liggéey li laa lay dénk réew mi yéen a kaay moom di xamal ne xam na lakk gu am ca diwaanu Kolda ba ñaari nit faatu nañ ca ñaar ñi taqaloo di ay cheikh yu jigéen nday ak Mariatu Njaay seen nataal bu daw yaram mi ngi ci ci Les ko yéen kaay téeméer ak ñeent fukk ak juróomi million moom la ñu ut ngir tàqale leen ndax ñoom ñaari seex yi ñoo bokk yaram waaye xam ñaari bopp yéen a kaay bi na léegi am na ñetti at ku leen jéem a opéré tàqale leen rek fa ñuy faatu ñoom ñaar ñëpp kon ñoom noonu lañ mën a dundee léegi nag li ñu bëgg mooy fexe ba jigéen boo xam ne fa ngaa hëmbu ñu xam ne sa doom yi fa ñoo taqaloo seex yu taqaloo leen ñu sàkk ci pexe bala moo toll yenn at yi ndax loolu fa bëgg a bëri toll nii laneen lu bari Sénégal te baaxul sant yàlla mooy li ñuy duppee teral jigéen juy sëy am xew ñu lay ngénte wala céet nga jër ay teraanga waru gara jox ko say goro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 ñoo leen doon may li ci yéene kaay yi jaajëfal ko bu baax a baax moom El Hadji euh, Sidina Omar Cissé jaajëfal ko moom ko ma Seck madame Keneme nekkoon ci xarale gi jaajëfal leen itam fare woon ci déglu bi ñaanal leen keddalu jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf Le journal Ndeye Khady Sadio